asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yu seen football TV nuyu naa leen bu baax yéex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo comme ni ngeen gisee maay stade maître Abdoulaye Wade donc euh, stade bi si laa nek mais dafa am ben question bu xamantani yi manqué gis sama ay internet du ko poser après le dossier Soufiane Diop mu passé à côté ñu bëri ñu me posé question Mohamed est-ce que soumar aussi du démé noonu mais pour man actuellement bu fekkee amna lu xamantani dañ ko war wax moy que dañu wara jox confiance à Dion lopi dañu wara jox confiance à Lamine Camara ça veut pas dire que nak dama abandonné l'idée que Boubacar Soumaré ñëw fi parce que actuellement mo ngi Séville et c'est un joueur assez intéressant un joueur bu xamante li ma soxla ci mom deug pourtant Diolopy mën na ko maintenant Diolopy comme ni nga gisee bu nekké petite catégorie joueur bu extraordinaire la woon joueur Pogba sax lañ ko daan wax moom aussi si ay interview mu naan Pogba mooy sama joueur et qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que nous bu mu demee Reims ak championnat France dañ ko tënk si ay ay récupération si si da ngay da ngay jël bal bi récupérer joxe nekkatul le le Pogba bi xamante ne ko en petite catégorie donc loolu bu fekkee yeewu na je pense que du côté de Liga espagnole loolu dinañ ko yee parce que techniquement parlant c'est un championnat boo xamante ne dinañ la bàyyi nga jouer c'est un championnat boo xamante ne du la du la tënk da ngay récupérer dem joxe dem toog non du demee noonu championnat Espagne ak Almeria boobu nek dinañ ko bàyyi mu jouer dinañ xam réellement li di nelaw ci Dion bi mu yee carrément parce que ma ngi gis à à je pense que physiquement il est au top mais il reste football league dama koy wax souvent ne football peut-être ay at ci ginaaw des joueurs comme Ricosta des joueurs comme disons Aymar y avait des joueurs comme ça soxla ñu woon euh, esthétiquement parlant ñu andi ay buts ay passes décisives mais football léegi dafa changer. T'es un milieu terrain on va voir ñaati passes décisives nga def un attaquant on va voir ñaati bi nga dañuy xol say loolu dañ koy xol bu baax internet bi mais avant football Zidane si on a man mo nekk sama joueur Zidane mu bi Zidane mu def passe décisif bizarrement la comparaison Zidane Iniesta bi comme mo ay passe ay ray la lay def parce que bo xamé football yàgg football autant doon ñu maintenant Dion il fait des bons matchs malheureusement c'est pas le gars qui était calaat 50 20 buts c'est pas un gars qui était calaat 10 buts et boo faire la comparaison avec d'autres joueurs rek Sénégalais bi dinaa non tel joueur là tel joueur alors que Dion Lopy am na ci et on dañ ko De jox confiance jox confiance c'est à coach déjà jox confiance et c'est à lui tamit à l'entraînement et même club on mu on a war na une place en équipe nationale du Sénégal parce que ñoom bu ñu niveau bi fenn fii. sama genre duñu nekk di wax ay Soumaré parce que man jàpp naa ne li ma soxla si Soumaré maanaam box box bi nga xam ne tout le temps maa ngi koy premier ligue jeu boobu intensité bi jon lépp war na ko man keneen ko xamante ne war nañu ko def sansam c'est bi ñu tegee fi match euh, quelques minutes contre Algérie war na sénégalais yu bëri il am na talent maintenant nag man souvent damay wax ne mën nga toj génération foot nice mën nga toj chan ma tàccu mais j'attends la Ligue 1 française nga la maintenant Ligue 1 française doo ñëw rek toj ko demeewul noonu laajal Ismaïla Sarr laajal Papis Demba Cissé c'est les jours yu xamante ne GF lañ ñëw ñëw ñu rek ñu la Ligue 1 française dañu laaj temps Lionel Messi moo ko waxal Je dama ñëw championnat France mais faut ma adapté wu Lamine Camara aussi jàpp leen ne daaw la fa ñëw ren jii la Ligue 1 française la il faut mu adapté et ces derniers matchs que ça soit bi du côté Lyon Groupe Stadium je ne passe décisif gis nañ tamit contre Monaco xam donc euh, lui de mu dugal bii bi gën a rafet pour man de l'année actuellement on parle que bii boobu noonu donc Lamine Camara c' est un joueur bu xamante il faut que ñu jox ñooñu confiance vu que Coupe d' Afrique c' est demain mënoo fi changer mënoo fi chamboulé mënoo fi wax Soumaré mënoo fi wax keneen du moment que boobu ba léegi ñoom ñaar ñoo ngi leen di convoqué jamono bi ñoom ñaar Lamine Camara ak keneen kii di euh, keneen kii di Dion Lopy pour man pour Coupe d' Afrique bii di ñëw nii.